sama sëriñ sax du ma waxoon ci politique parce que bëgguma xaw ma ku mu fa xëy na boo waxee moom mën na indi jéye mu doon digal ci man te bu ko deful day nuru ma wax leen it ne leen mënuma comprendre benn bis euh, ki jiite chef de village woo chef de village mais mënuñu comprendre même jour même heure loolu nag ma wax ko ne ko monsieur le maire loolu mooy indi problème bokk na ci li indi problème parce que yenn nit yi ñooy def tournée boo demee fee même tête yi ngay gis te loolu gënul nañu arrêté sunu yi ñuy ñu bàyyi ku ci ne ña nga mën a coordonné nga coordonné leen ku ci ne koo mënta coordonné nga xam ne mënoo koo coordonné nga bàyyi ko ka ko mën a parce que loolu mooy li gën mais bu fekkee nag ne dañuy jël ay responsable yoo xam ne dañ ko jëlee ci laat sec wala keneen wala muy tourné dugal xaalis ku ci dugal xaalis rek tooñ nga parti mouvement présidence ku ci dugal xaalis rek tooñ nga mouvement mouvement présidence ku ci dugal rek tooñ nga parce xaalis kenn waxul ñu ko buñ ko ci waroon dugal nit ñi mais kenn defu ko mais 26 000 yi ñu wax dañoo wax ne 26 000 yi dem appareil politique bi fi nekk ñu daje ñu def ñu wut ko fa mais ñëpp lañ ko wax mais caagu ne kenn lañ ko sas wala kii wala kaa ñëpp a ko moom kon nag loolu la war a def ñu bàyyi ci xel ñëpp ñu ànd. non loolu du déggoo da man du APR kese parti yëpp am problème parce que li ma gis buñ ci deful attention dana indi problème ñi parce que ñi am nit ñi ngi ñi ngi góorgóorlu mais dafa am ñoo xam ne amuñu nit dañuy jënd ay nit ñuy jënd nag ay nit danañ dem jaay leen loolu mooy problème